jërëjëf euh, welcome back to Star TV euh, Sport Bantamba ñu jégalu rek euh, ci litement bi it's almost half past 11 fii si biir lii di kër gi comme ni ñu ko far defee rek dinañ waxtaan si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di am kër gi ñuy ñuy ñëpp ñu nga xam ne rek ñu ngi seetaan via on Star TV satellite ak ñu nga xam ne ñu ngi seetaan Star TV on Facebook page Gambia Star TV Star TV Gambia tey nag dinañ waxtaanee lu nga xam ne rek mooy si wàllum lii di football comme ni ko indi rek mooy yema Euh, audience dialogue euh, for AFCON preparation lu euh, nga xam ne rek ne gis nañ ñu bëri ñu ngi oo pour am si national team bi gis nañ kii di Baboucar Sagnang mu nekk football coach. tamit coordinator foofu si biir di Germany moom nag woon na ne audience dialogue dafa war am jeexit président bi war a génn oote an audience dialogue coach bi dafa war a ñëw town ak toog ak i technical director ñu waxtaan di way forward for Gambian football because fu mbir mi di dem. Euh, dafa mel ni euh, nekkul lu nga xam ne lu jub la euh, comme moom nu mu ko gisee benn tey am nañ kii di Baboucarr Nani si suñ naataange si wàllum lii di media ñu yëngu si wàllum lii di football moom it dinañ waxtaan ak moom si yëngu-yëngu yu nga xam ne rek am nañ ko. mu war a xew fii si biir lii di am réew mi am nañ kii di Ibrahima Kampo Diatta am nañ kii di coach Moustapha am nañ kii di Essa Lo jox lii di round up lii di GFF league bi si week ama 3 quick la ñu ne mu jox leen lii di headlines yi euh, fii si Star TV ama sport ama bantaba euh, dinañ dem xool nag si headlines yi Gambia versus lii di Africos match bi nga xam ne rek ne gis ne passé na Africos dóor di Gambia Eh, two goals to ama eh, zero foofu si biir lii di ama Tanzania foofu si biir Daaru Salaam eh, benn tey bu ñu jógee foofu nañ xool kii di Babacar Sagnang ku nga xam ne jamono bi bind na on Facebook mu oote an audience dialogue pour action si Africa communication preparation bi oo kii di ma Lamine Kababajo di président bi kii di ko Tom ak technical director kii di Sandong pour ñu def lii dialogue dinañ xool 49 days pour dem lii di AFCON foofu si biir Afrique how prepared is Gambia ci 49 days yi xam nañ ne NCC loñ nañ ko waaye bañ tey gisuñu benn yëngu-yëngu bu nga xam ne euh, ñu ngi koy def jamono bi fii si biir lii di ama réew mi amaanaa ñu ngi meeting nga xam ne génne na si public bi pour wane ne euh, fii lañ war a def accounts fii lañ war a def loolu gisaguñ ko suñ jógee foofu nañ nga xam ne jamono bi gis nañ ne attaquoon nañ ko si Facebook bi te nag foog na ne Aziz nekk na ndaw lu nga xam ne kuñ war a delloo cër la am na contribution bu nga xam ne def na ko ñaaw na lool ñu war a wone Aziz lan la defal lii di Gambian football si dinañ xool kii di Lamine jaalo Beck mu nga xam ne bokk na si ndaw yu nga xam ne score nañ si euh, CAF Champions Amal League bi moom mii di Lamine jaalo mu nekk ndaw lu nga xam ne dimba score na euh, jamono boo xam ne tiimam bi nag ne def nañ seen force play si groupe bi euh, ñu wiin dinañ si indi yaatal Nicolas Jackson gis nañ rek lu nga xam ne moom la ama Daily Mail indi Euh, moom mi Nicolas Jackson nag waxtaan ak ñii di Daily Mail mu ne moom euh, play na lii di football euh, ci nag ne nu mu ko doon play mooy barefoot loolu nag mooy tànki neen la doon play loolu nag yaakaar nañ ne Banjul la xewee fii si biir lii dem ama réew mi dinañ dem xool li ñu di Serekunda FC ñu nga xam ne ñoom it ñu football club ñu nga xam ne ñoo jëndal lii di Gamtel change lii di team bi def ko an academy football club waaye nag si ligue bi Serekunda FC la waaye itam academy mu nga xam ne jamono bii Euh, door na fii si biir lii di réew mi dinañ xool lii di results lii di GFF league bi euh, dinañ xool tamit euh, lii di table bi dinañ xool fixtures yi nga xam ne ñu war a xew tey fii si biir lii di ama kër gi Kampo ñu bàyyi la nga nuyu. waaw jërëjëf Mbaye ñu ne good morning to our wonderful viewers ñu ngi welcome then another exciting sport bandaba comme na di ñu ñu ngi am fii des station un so ñu ngi am tamit a ah, summa tamit si big bag exactly yeah so ñu ne stay tuned like uh, ah, and enjoy the show because it's going to be another interesting uh, ah, sport bandaga all right uh, thank you very much Baboucarr Nancy ñu bàyyi la nga nuyu thank you uh, thank you Mbaye uh, Kampo and then di si invitation bi this is my first time here and I'm to be here mm-hmm. di nuyu seen followers yi and to say I'm happy to be here alright uh, thank you very much uh, Baboucar Nani si si yow la ñu dooree rek su boobaa ñu bàyyi la nga dem uh, su boobaa rek ñu dugga si biir li di waxtaan bi um, waaye yama um, briefly rek xëj na di nga si bugg a sànni sa kaddu si lu ndaw rek si lu nga xam ne gis nañ Gambien su nga xam ne di outside the country di offer a dialogue um, naka nga jàngatee loolu balaa ñu ñu waxtaan ak yow si yu nga xam ne war nañ ko waxtaane naan ne taskati xibaar nga yëngu yaa ngi yëngu si football lan nga jàngatee si audience dialogue for AFCON préparation my question bi nekk na lu ma bett but um, I will say dialogue du tey lu lu yàgg la ñun Gambie bi bu ñu amee coach boo xamante ne you foog naa maa maa fi waxoon maa ko woon coach semester mhm. because time boobu de only time ñu gis ko Gambie mooy Gambie su ñu ñëw pli mu ñëw prepare booy dem no léegi sa loolu amatut mm. you know coach boo xamante ne du toog ak media bi waxtaan leen lan moo tax mu def ii ak defut bii mm-hmm. you know coach boo xamante ne dafa toog biir Europe la moo toog dem def scoutinam ak yooyu noonu yëpp du fi accès. Mhm. the only time mu waroon a ñëw fii mooy xëy bu ñu ñëw jël sa flag bi pour ñu dem Cameroon. Mhm. you know façon coach boobu soo ko amee ndax nga koo scrutiniser. te dinañu waat mu jël faa waaw who is he answerable to. boo xamante ne technical director bi. si coach ko. Mhm. you know kooku noonu duñ ko lay nekk loo xamante ne you know amee naam lu baax la waaye lu yàgg la war a doon bu tey.

it's really not promising and soo xoolee si groupe bu ñu nekka you know ñun dañ def jaloore bu ñu demee Cameroon. so suñ yokkut waruñ tax wax ji suñu àggee Ivory Coast. waaye groupe bu ñu nekk ak di waiting are going ak performance bu nekk di xew. Mm-hmm. munu munu bu nekk di daw si national team bi problème sélection yooyu noonu. Mm-hmm. we will go for an embarrassment suñ demee Ivory Coast suñ ceeñut so dialogue su happening now. Mm. it can save us. all right thank you very much uh, Baboucarr naa ne si si kàddu yooyu noonu uh, dialogue uh, dafa war a am te moom gi si jëmi bu xam na ne léegi la war a xew we have only na ba pare. sa NCC bi la ñuy def NCC naka NCC la wala. NCC ñun ñun ñëpp la ñun ñëpp. ah ok yow yow NCC bi bañ nañ ko waaye kañ la ko campagne bi. loolu mooy wax te foo ko def million ngeen soxla ñu ne. <laughs> ok euh, thank you very much naa ne ñu ñëw nag si waxtaan bi euh, gis nañ ne Cherno Samba euh, mu ngi war a ñëw comme ni ñu ko déggee ñu ne mu war a ñëw Gambia because gisoon nañ ko recently in Ghana gis nañ ko in Nigeria dafa mel ni am na attaque yu xam ne ñu ngi ko doon attaque ne doomi Gambien la waaye dafa mel ni faalewu di réewi Gambia naam nes yóbbu na ñaari ndaw mooy Adama Bojang ak recently this euh, defender from. demboo Dembo euh, euh, Biko Dembo. Mm. lan ngeen xewle ak lan mooy mission bi pour Gambia. waaw mbay waxtu bu jotul kenn du ko julli. Mm-hmm. wax bi bëri na you know I mean Cherno is a Gambian. Mm-hmm. despite ne dafa teel a génne nii waaye Gambian bi da ko génne si moom player na Gambia sol na jaasi bi player Gambia. so comme ni ko la waxee rek you know balaa mhm. na essa fii nii mhm. dégg na time boo xamante ne due to circumstances you know stressoon ma trop mhm. you know ba mbiri Gambie daf si wàññiwoon lu bëri waaye loolu nag expérience moo la waral yu mel noonu waaye ñun ñu nekk si gannaawam dem nañ ba convince ko you know ko ne come back let's start again and te eh, gis ngeen recently bu mu ñëwee lu mu start def yóbbu na ñaari ndaw comme na ko waxee ah, dem na Ghana dem na Nigeria dem na yeneen dëkk yu bëri you scouting for talents you know so Gambia aaye léegi ah, loolu moo tax ah, mu waajal pour ñëw Gambia and Gambian ah, talent scouting bu ñoo ñoo def fii nii is gonna be bigger than Nigeria and even Ghana. because bu moo dem Nigeria three clubs la yóbbu moo dem Ghana two clubs la. Mm-hmm. bon mu ngi ñëw Gambia with eight clubs. eight clubs you know ñoo war a ñëw Gambia to scout for talent. am nañu British eh, clubs. yu waaw mu ngi based in Britain. waaw because Gambia lu ñu gën a gis mooy Italian. Eh, Turkey Scandinavia. ok euh, kuy léegi pour commencer ko foofu rek mhm. euh, clubs yu war a ñëw mooy mhm. euh, ñoo xamante ne confirm nañ mhm. am na ñoo xamante ne perhaps may join in the flight in the last minute mi ngay work on waaye ñoo xamante confirm nañ jënd nañ seen ticket yi ba buggal nañ leen seen hôtel yi ñëw lim ni mooy FC Lugano from Switzerland dinañ ñëw foog naa mooy former team yi Pa bi ak Watford from Angleterre ah. nga ne anglais la so Watford ñi ngay ñëw Graza AK from Austria dinañ ñëw Chicago Fire from dinañ ñëw Rapid Vienna tamit is from Austria. waaw euh, dinañ ñëw Red Star Belgrade. Uh-huh. from euh, Serbia. Uh-huh. dinañ ñëw Lichia Danks from Poland second division dinañ uh-huh. ñëw. you euh, know ak Austria Vienna tamit dinañ ñëw so ñaari Vienna yi nii nekk Austria Rapid Vienna Austria Vienna. all of them will be coming. so teams yu war a confirm for the last minute mooy recent partners mooy Reims bu France you know um, team i Canada bi Vancouver Vancouver you know and other clubs might come in the last minute waaye confirm aanguñu waaye yii nii eight clubs yi nii confirm nañ ne they will be in Banjul you know for the scouting mission from the 5th to the 9th uh, boo xam ne goal project lañ ko uh, bëgg a def incha allah. Um, uh, ndax am ngeen teams yu nga xam ne right now ñoom ñu war a join si projet bi um, trials bi already bi ko si nañ yeneen teams yi balaa ñu ñëw dinañ invite teams yu war a ñëw. Euh, ndax invite agu leen euh, su fekkee tamit invite agu leen what are the pour wan euh, ku nga xam ne bëgg naa join on this trial because team yoo leen fi lim yëpp ay team mag la ñu waaw team yi mag leen suñu sañoon nag team si yëpp bokkase mhm. you know soo waxee Gambia it's uh, you know of talents and a lot of teams xëy na mhm. grounds lañ amul waaye teams moom ah, na this ah, mhm. a year because ñaari sooma lañ am eh, sorry ñaari transfer window lañ am mooy sooma bi ak winter bi so suñu amoon luñ bugga bugga nañ koo def twice a year ba dañ bëgg a xool first trial stage bi naka la moo mel suñu successful we want to do this every time balaa window bi di open gars ñëw organise scouting am player ñoo identify then ñu mën a naa move si during the transfer window waaye ñu ngee doog a door mosuñu ta def lii fii ba tax na duñ mën a involve ñëpp so dañ jël duñ ko def tamit to be fair enough we took from academies mhm. took from second division and first division mhm. ñu leen bëgg a and we are looking into 24 teams altogether 24 teams teams waaw from first second Uh, four seconds so suñu targeted age bu gars yi bëgg to 19. ok waaw loolu la from so how many days nga trials war a am in Gambia. dafa nekk on the 5th 6th that's 5 days. 5 days that's 5 days at the gold project. 9 uh, o'clock la moo door. ci suba ci suba dem ba 12. Uh, o'clock yes si si So it, eh, already clubs are calling, people are calling, like, you why I wish I could just, mm-hmm. invite everybody mm-hmm. on board to come. Why come to here, like, you know, you get dog a door, you and we are preparing this for the January window. Mm-hmm. I mean, hopefully we'll have a better time to prepare more on summer, you know, yeah. you know, yeah. you know, but uh, we just you know, apologize to every other club or mm -hmm. academy that could not take part, mm-hmm. you know, to say going to make it bigger. Guy Bunjame in Nigeria, they had like 40 something teams. Ghana, the same thing. Mm-hmm. then they said I five games a day. Yeah. You know what I I mean, I don't think we will have that capacity, you know, but for the second is only league yang on. Mm-hmm. League yang on. So for a game play low, don't want to play low team but if I'm league game. League, yeah. For play before or after. Okay. That's only five days I jump at a day. you know, coming to the, the, the summer one, so but we organize well as summer transfer today. But for now, you know, we have identified 24 teams, mm -hmm. um, in first division, 8 second division, and 8 academies. that's what we want to start with ñu xool naka la moo demee su si yàlla defee jaama ba yëpp dem successful mhm. we will do it bigger and invite more teams comme the next one inshallah all right thank you very much Baboucarr Nandy Sy sa final message den ñu bàyyi la waaw pour wax ne rek um, nañ liggéey rek liggéey a mhm. um, football bi is for everybody and uh, we are going stage boo xamante alhamdulillah ñun bu ñu leen play suñu type amuñu seen opportunity yii nii you know xëy na suñu amoon opportunity ni kono mic bi du ma gis dama continuer play football so there is chance chance for everybody now you know to to showcase your talent especially the younger ones mm-hmm. you know man soo gisee léegi first division football management lañ ma xamee woon you know léegi nekkaatuma foofu noonu maa ngi am académie léegi si académie so football bi grassroots la mm-hmm. dañ ko war a fula dañ ko war a dooleel authorities responsible for the football ñu provide ñu di conducive environment pour mën a showcase suñu talents you know for for these young ones you know the market is open now you know time boobu Sénégal lañ don en ñuyɗeelo mhm. nawde community de gambia no ko waye italien sang fi mhm. now we're having even Europeans now coming in. So the linguist Fini. So say, you maybe from our performance with national team, like, mm mhm. so let the authorities just, make sure provide us the necessary, uh, uh, uh, things that we need to excel as a footballing nation, particularly the infrastructure. Lulu is deterring us a lot, you know, infrastructure-wise. You know, the academic for train, problem, you know, you know government tamit should step in and then ñi liggéey waaye nañ gën a yokka you know I bi kañ la moom pare but we need more mm, parks mm, mm, for the kids to be training and yooyu noonu but uh, we are on the right path I want to believe you know waaye grassroots dañ ko war a fulal dañ ko war a dooleel bu baax parce que léegi éjëm li ñëw fii dina jëlal under 20 no way you know 16 la laa waa ay 15 18 ak yooyu maximum wala 19 so that tells you, you know, football, the future of football lies at grassroots level. But inshallah. All right. Uh, thank you Si. Uh, ñu gërëm ko bu baax a baax rek uh, hopefully on Tuesday dinañ amaat kii di Babacar Nani Si on our flash sport pour ñu gën a information ñu war a jógee ko foofu si biir lii di naan kii di Thierno Samba ak team uh, ñu nga xam ne ñu war a ñëw fii si réew yi ama Gambia. den ñu dem xooli Gambia versus ama Cameroon den ñu bàyyi suñu guest bi mu dem suba Gambia waat fii si Star TV ama sport Bantaba. Alaaj naa ne back out to the ball, didn't happen, and they might be back to fall behind this time. It's the goal in the final of the half. The Gambian resistance is broken. And Christian Kouame, all that dominance, that, but that many chances. Gambian defence finally creaking with half-time approaching. Odujobe made the save initially. Low ball coming in Adingra. It was uh, the first attempt and Kouane Fiorentina makes it 1-0. Defender coming on, I think, as Sikro Fofana lines up another shot from range and that one sails high into the A brilliant goal from the midfielder. really looked like adding to their lead. Certainly, really looked like scoring since uh, Fofana had that long-range strike that whistled just over the bar shortly after the restart. That one sails in under the crossbar. Goalkeeper, its lightest of touches. But he couldn't put out. As we see the first goal again, stroke of half-time from Kouame. There is the second one. Siko Fofana, Al Nasser in Saudi Arabia. 2-0 to the Côte d'Ivoire here at Dar es Salaam Um, uh, once again welcome back after a short commercial break euh, ñu xooloon rek lu nga xam ne moo doon xew waaye balaa loolu rek dañ bàyyi ama euh, coach euh, su boobaa rek mu nuyu askan bi ndig bu naa ne doon waxtaan rek coach mu ngi toogoon coach ñu bàyyi la nga nuyu askan bi rek te tamit dégg nga lu nga xam ne rek moom moo fi bàyyeekoo suñu naataangi kii di naa Nané si si kàddu yi nga xam ne rek jaaral na ko fii lu nga xam ne Thierno Samba is coming back home with a difference waaw um, asalaamaaleykum um, di leen nuyuwaat rek um, another exciting programme mm-hmm. di ñaan suñ gars yi ñu dee seetaan si biti ñu taaxaar li ñu suñ fi jógee suñ amee lu ñu wax ñu wax ñu ko mm-hmm. foog naa ne we are on the right track mm-hmm. which um, everybody is welcoming the the the, programme everybody man fu ma laaxaa dañ ma dee wax ne ma programme bi kañ la saturday one time ni am na benn suma benn sister sax ba ma ko ne xanaa yow <laughs> ñaata saturday moo am si week bi benn saturday rek la di <laughs> mu naan ma ma ne xam nga da nga waaye waaye nonetheless ne pour wan la rek how moom curious and always eager to make sure ne mu mu watch programme mm-hmm. bi waaw mu ne mu ngi nuyu Kampo mu ne ma soo demee nuyul ma Kampo <laughs> ma ne ko waa baax na naa ko ko wax waaye waaye just to tell you ne it's it's a program that is very much enticing mm-hmm. and everybody wants to watch it so ñun tam ñu ngi leen a gërëm ci loolu kon naa ne loolu rek lañ ñu mun a dooleele di ñu seetaan su programme bi jeexee ñu am yu ñu si wax ñu am yu off the mic ñu mën a ñëwaat pour meet things straight and very good All right. Uh, thank you very much. Uh, topic binat is um, uh, urgent um, dialogue. si national um, team bi uh, lañuy la ñoy doré campo um, uh, ñu gis rek Gambia play against Nidia Africos after that you know um, uh, Gambians I think three quarter of the Gambians we are not happy uh, because nga lose to Burundi uh, you know um, with a very poor football nga ñëw am Nidia Africos uh, ñu gis uh, coach bu woon ne you know um, su amee point you satisfy with one point Um, um, ñu um, you them with all the you know defensive um, at the end of the day, we concede uh, in the 45 minutes of the first half. Then you what um, minutes It's something uh, minute you consider another goal um, in the 9 minutes. I think 85 minutes you guys scored. Um, Gambia, uh, mu nekk réew mu nga xam ne dem na play si quota final si uh, mu nekk moom moo fa nekkoon ba def quota finance yi si wàllu si dëkk yooyu moom rek a egg si quota finance yi you this time around you have Burundi ñu nga xam ne ñu you have Gabon you have Kenya yooyu yëpp they are top of Gambia soo xoolee si groupe bi Gambia c'est contre la zero point minus three. it's very very very sad parce que bu comme yëngu ñu ko soo soo soo six point. three points. Yeah. waaw mbaa nga am two points. waaw bu ñàkk a ñaari loolu daf naa maanaam comme par exemple boo amee la sunu si two two or three years doo dee doo dee mën a bokk. parce que mooy énu mos mos wala ko out of ten mosoo sunu si three rek léegi doo dee du ko doon leen nekk foofu par seconde. su bopp premier bi game lose nañ identity bi boobu fine. loolu loolu loolu aussi away game boo nga dem di si start and play donc lose nañ li óoloo nag xanaa coach dama dugal bu koy yeneen coach dugalee rek nag bon et coach laay pep la is winning team million for instance, but 90% didn't think of anything. Yeah. Wow, so usually I'm going to think I two or mm-hmm. press conference moom dafa wax ne deliberately Ivory Ivory Coast ko ne neen goal say xool neen gars yi am nañ fan la gars yi baax but they will try to study the game they are prepared anything can happen but he will certify su amee draw against gars yi we don't win gale mm-hmm. he just dem respect yeah but moom draw bi la wax so mi ngi ñu comme disfiction bi a boo xam ne daf ko tey because yaa ngi jël players yoo xam ne they are out of position ñoo xam ne du day play midfield six ñu waa song mu mu ne he play at centre back at right back loolu loolu la Taro Ngom was a defender ñëpp xam ne coach moom xam na ndóobu parce que ko kooku mu su nekk every midfield player but daf ko dee use as midfield player

So it was a poor display. Lebanon is on incredible. 90% of Gambian fans never got agents. Yeah, you play, football. You play, wow. The defense, wow. you still consider. Wow, wow. They always lose never Gambia. You can score. You hmm. can score. You can score. Um, always you can fight back. Nga nga nga equalize. Lulu never always. Football never always. I'm not time I'm there. Wow. I'm not time I'm Europe from ñoo dominer Europe yëpp tey but after people started their style their style of playing. Mhm. di di understand na ko after woon but after boobu then they have make some changes also again bu bu kii jëlee Pep génnee Enrique Enrique ñëw daal demaat dominate dominate so bii was also deliberate fiction from him hmm. and something he have to explain boobu mooy ñaari yoon mu ko def. def na ko against Cameroon def na ko ak bi te di step in. Right. But this is not good because we're just at the corner. Yeah, Dylan wow. Uh, thank you very much. Uh, coach, um, uh, against Africos, uh, you know, um, was a very poor game against Africos. Uh, Demon nañ sax boo xam ne Africos uh, dañ mel ni ñu doon def training section, you know, demoon campaign because li ñu doon bangi ne ball bi yaakamti wuñ Euh, toog di seetaan because soo xoolee sax ñoom seen team talk bi euh, inside their dressing room ñoom dañu waxoon ne they respect Gambia because team boo xam ne nag dafa dem play ba si Africa Cup bi si côté finance xam ne la gars yi amoon si national team bi waaye di end of the day lu gars yi fekk si biir pitch bi you know was not encourageable because nax nañ ñu forcé ñu ba score ñu that goal um, comme ni ko Assis waxee rek we defense and we still taking goals every game we have been talking uh, Because against Burundi, we conceded three goals. Against Africos, we conceded two goals. And um, almost days put them off Yeah, those are all factors um, if you are making a tactical review of the past game, um, factors you nga they said. Mm -hmm. If you are scoring, nga said what, is making you to score more goals. If you are not scoring, your defensive, you are shipping in goals, you will score. nga seet yow defensive aspect. well ak balaa game bi on press conference balaa game bi on Burundi euh, dafa wax ne Gambia concede goals te it's not acceptable as the coach. moom ci moo xam ne ñun dañ dee concede early goals. yàlla ñu gis after Burundi bi mu change the whole setup. waaw waaw indi <laughs> whole gis nga gis affaire bi. Mm-hmm. Euh, euh, coach la waaye sometimes um, he takes it on his own ba nga xam ne daf dee def mistakes. Um, we don't want to be criticizing. but um, lo lo logically. Mm-hmm. there are things yoo xam ne it leads you to failure. Okay. one that is preparation for the game. Mm-hmm. if the preparation is not right. Mm-hmm. always leads to failure. Okay. because preparation is not only coming nga train tactique bi nga dem loolu is not only that. The selection of players even is part of the preparation. Mm -hmm. understand that? The selection, if it is not right, it will lead you to failure. Because I cannot understand, after having Mandan, to be candid, it's not about criticism. Mm-hmm. But as a technician, mm after having Mohamed Bajo inviting him, saying all kind of good, good things onto the youngster, and then having that, um, good statistics on his soldiers. I think even our first game against Burundi, he should have been given if it is 10 or 15 minutes. Yeah, because coach, uh, I'm going point, I'm going point because you know, um, so wholly um, respect to um, uh, Dauda Ngom, but Dauda um, was in that midfield, uh, lum charge, lum am. Mujoko de Ivorians. Wow. And I think that, you know, um, that boy, uh, by Bowanunu, gis demonstrated at the under, under, under 20 World Cup mm-hmm. uh, against France. Um, you know, doo mën a praise ndaw li indi ko si national team bi pare teg ko si bi because I think ne you know uh, Tom has been doing this because suñ ko criticiser léegi léegi on social media ne nekkul di invite a 20 lu mu dee def rek mooy dafa la dee oo teg la si beñ bi xam nga su la ooyee dafa mel ni silence the people because soo xoolee just take an example of Sénégal their first game bu play si Africa uh, World qualifier bi uh, this guy how to call it um, Lamine Camara ndaw yi in that midfield of the Senegal where you have you know all their these big big players après boobu play wane boppam. no no it's not even Lamine I'm I'm not even going to say Lamine. I mean, have a player like Jamano. I stand to be corrected. Uh-huh. Did he start against Burundi? No, Burundi waaw no dafa waaye waaye wax rek mooy ñun am nañ you can fill in offensive minded players. are a coach. But the tactical approach is defensive. It's not when you're thinking defensive, you should always put in the players who are defensive. Whose role are, defenders? No. You can fill in offensive minded players, mhm. but the tactical approach of that game with the offensive minded players mhm. will be defensive. Because you have to tell them when we are with the ball, we have to play out. But whenever we lose the ball, we have to defend back. From the from the offensive players, right down, everybody should be behind the center line. And that's that's more encouraging than, setting up the team with so many defenders that if they get the ball, they give it back to the opponent and the opponent keep on hitting onto them. Mm, mm. After all, what time did we concede the goal? Under? the, and, uh, mm. You know what causes that? tired legs and tired brain. Yeah, because, because you cannot be, 45 minutes. Wow. Almost you're getting break. Wow. And, and then look at the time you concede the second goal. When we were on top, because when he brought in the changes, we were moving out. Yeah. When Badamosi, Ibrahim Okoli, Hamza, When all those people came in, how many? They were all offensive-minded players. And that we were putting pressure onto the opponent. We played on top of them. How did they score the goal? Is it not a counter? From a counter, is the they get their second goal. But had it been, we also played on top with the approach of whenever we lose the ball, we get back to our zone and then frustrate them in our zone. You understand? That can be possible. But nonetheless, he knows better. Hmm. He is with the players. He knows better. But I think when he were the Fimko amee wrong rek mooy ne eh, during the selection. selection of players xam nga mun ngaa indi ñoom ñëpp sax ñi ñoo wax pour mu oo su leen ooyee another affect another issue dina xappunaat mooy ne beneen selection of players xam nga beneen selection bi mooy la xam nga force selection bi mooy di under ñaata 23 players ñaata nga oo yan players nga oo ci 23 bi léegi beneen selection bi xam nga mooy ban mooy ban 11 mooy start waaw ñaari selection yi moo dee am si game selection yi 20 man squad bi or 20 man 23 man squad bi and then the selection of the team itself that is to play the very day so soo amee mistake ci yooyu rek ñaareel daf dee reflect to the game te team yu mel ni team yu mag yooyu noonu comme ay Ivory Coast mm. Cameroun Sénégal xam nga nit ñi ñu ngee jooy ne Cameroun mënoon na ñëw win Cameroun biir Cameroun had it been ne mu place in the right players mm. because of lan lañ gis the second half when he did the changes waaw waaw so so loolu la gis léegi nag su fekkee ne gisoon na loolu loolu da ma ne sometimes um, if you say something dafa mel ni da nga criticize sometimes Tom daf dee def premeditated selection instead of factual selection on the ground xam nga premeditated selection comme léegi-léegi nii su ma yenn brothers si comme ñun bi ñoo door coaching ci suuf dañoo ne ah bàyyil bàyyi start second half bi after mu may campo comme nawetaan ba play koñ yi warga warga yi mm. booy yoo dooral after man nga may ma mm. waaw nga so dafa mel ni Tom sometimes noonu la dee xalaatee te te te dëgg dëgg it's not criticism waaye dañoo wax su suñ suñ suñ suñ suñ suñ opinion da because tam ñun booy dëgg dëgg dëkk bi suñ dëkk la suñ naay see rek ñun la so dañoo nangu pour ñu dee wax yéen ay su ko defee mu mu bil mu lead to a betterment understand nga xam nga naa ni wax na ko fi hmm. about the the the the, the technical department mm. under what my brother Babukar Sanyang has been saying yeah, yeah. this dialogue should have been there yaa na ñëw si loolu ñu xool coach euh, lu Baboucar wax den ñu ñëw si loolu hmm. um, right mën ngeen ñoomee Baboucar um, euh, Gambien la mu ngi foofu si biir lii di Germany euh, di liggéey si wàllum lii di football moom nag lu mu yónnee mooy ne um, moom dafa call for an urgent dialogue Euh, for AFCON euh, preparation. Euh, moom lu mu bindaa nag mooy ne I think my brother Lamin Kaba Bajo should step in to open a dialogue between coach Tom and the technical team and the Gambian fans moom nag loolu wax in preparation for the AFCON and the way forward for our football we all um, sign that uh, Tom and the technical team are not working Euh, loolu euh, tamit beneen affaire la toom ak technical team bi nekkuñ di liggéey loolu dinañ ci euh, indi am yaatal benn tey tamit wone na ne fans are fans are slowly losing confidence not only indi the coach but also indi the players and the technical ama department and also ama the federation so lii yëpp la jël moom mu dajale ko dafa mel ni lu mu wax mooy ne Euh, dafa mel ni euh, players fans yi ñu ngi lose confidence national team bi di lose confidence bi di players di lose confidence bi di fédération euh, te lii nekku di way forward ma coach yaakaar naa ne wane na lu wane na lu rafet ne Tom dañ ko war a samoon mu ñëw baax home the technical director is there the Gambia Football Federation is there comme ni ko Kampo waxee di have a committee ñu nga xam ne ñoom ñoo tee tax pour xool um, liggéey coach naa ni waxee rek now is the pour dem pour lii di AFCON Eh, naka nga jàngatee eh, ma kàddu nga xam ne Baboucarr war na ko he's working football eh, gis nañ ne daf di mun a indi lot of equipment back home pour jokkoo yi ndaw yi di liggéey tamit foofu si biir Germany when it comes to grass football so moom lu gis rek mooy ne dialogue dafa war a am because fans ñu ngi lose you know um, confidence to the national team coach bi loolu will not lead us to a good AFCON. waaw Mbaye foog naa ne Baboucarr comme li ñoo wax rek bii ne concerned citizen. Mm-hmm. Eh, soo gisee how things are going yow sa boppa di nga di nga di nga try to comment eh, am na ñu bëri ñoo xam ne they have brilliant ideas but they don't have the platform pour pour wax ko pour su ko defee nit ñi déggal seen ñoom li nekk seen bopp man waxoon naa ko fi ne there is no national team in this world that travels. Eh, balaa ngaa ñëw rek this mu ne mu ne Tom mii it seems like Tom want the GF to sack Uh, right. Okay, maybe, maybe euh, could, uh, maybe um, opinion ni Mr. and he, stands to be right. Mm-hmm. Waaye man dama foog ne Tom du bëgg ñu daaxa ko boobu benn affaire la. Mm-hmm. ñaareeli ñaareeli bi mooy. Mm-hmm. there must be there must be clause in the in the in the, in the, in the contract that mm -hmm. if any of the two parties mm-hmm. wants to terminate the contract. But was it was for five years man foofu laa gisee man foofu man gis mooy foofu la mistake bi njëkk a amee because xam naa ñëpp ñu ngi kontaan it was our first AFCON uh, ñu qualified for how many years ñu ngi ko try waaye for five years. man to man it was too big it was too long pour nga jox a coach a duration of five years su dul coach tam sax ku munti doon Sénégal de won the Africa Cup of Nations lu ñu jox Aliou Cissé was two years and they won the AFCON for the first time. waaw xam nga xam nga mbay mbay xam nga xam nga ñun eh, we are beginners in this high level football administration mm-hmm. di Gambia mu neex nit ki mu naxari nit ki waaye loolu moom mooy dëgg mm-hmm. we are beginners at this high level football management understand nga so xëj na yooyu noonu yëpp administrative errors la understand nga du neex pour nga wax ko waaye foog naa ne loolu moom moo xapul waaye itam am na positive am na negative the positive part of it is continuity it is to me I'm still coming back to Tom mm-hmm. a clever a clever individual should always be looking back what I did wrong and I want to move forward what I did wrong should always in my mind and then try to rectify myself in moving forward loolu dafa war a am moom tam mu loolu kenn waru ko koo wax so repetition of wrong things dafa bëri ci coaching site yi tom yi repeat yu wrong yu bëri hmm. daf ko dee def li ñuy wax mu stop mu dem ba si diggam mu defaat ko understand so moom daal it's his waaye we we we stand to be corrected I think ne the GFF should summon a a quick quick head coach waaw ñoom ñu chair meeting bi because there is nowhere in this world club si sax suñu football is the sporting director have to lead. football club the sporting director have to lead ñun fii sax suñ suñ local team si booy suñu play yi sax. si biir ligue bi sax Real de Banjul di nga gis Baye Baye Baye jiitu. Baye na lool Baye jiitu mën waaye di nga gis Pape Faye. waaw Pape Faye gis nga gis si uh, Moulay. so what of the national team. buñ seet tom lu neex tom bi nga xam ne dafa tax ñun ñu split even if another coach is to come in dafa war a ñëw def réconciliation ba pare door a liggéey loolu warta am dañ ko war a def depuis léegi su keneen dé ngi ñëw mu fekk oh, réconciliation comme Babacar Lô ko dégg naa parce que moom xam na ne fii daf lay ñëw always di defense di jefe always si face face Facebook am bi sax léegi uh-huh. daf lay mën a xuula ak his own college sax bon ñëw na gis nga bu ko football comme than decision door. Uh-huh. The mindset definitely definitely nekk benn. Uh-huh. yeah because just just living ideas mënu nekk benn but mindset bi dafa nekk benn kon ñu gis bët mu ko gis mind mu ko gis so it's high time moo mu génne li gis na ko because they are not working together. daal du dee taasu tëddee ngaraw du dee interfere si club bi sélection bi du dee interfere ba yeneen dëkk yi sélection yëpp te na nga daal club bi du dee toog xool club a dialogue ko fii technique technique terrain bi day wóob mu dimbale ko loolu kooku moo gën a xam national team bi even moom nekkoon na fa woon sax ah, comme léegi ñëw na mu ngi def tournoi kii moo ko fa jigéen ñaari yoon kii mu ngi bounce back dama ngi ñëw ànd nekk seen coach sax mu expliqué ko Gambie mentalité mm. mu choose the right place ak approche bu ñoo ko dafa toujours loolu jobam léeg-léeg dan dan day génnee coach mm-hmm. te nga dara mu des step in Spain I think World Cup in Russia mm-hmm. bu léppee toujours amee date Freud ak Real Madrid dañ génne ko ku ñëw Hero moo ñëw te Hero si kaw la dee toog waaye Hero moo ñëw coach team bi it's been done. So technically they, they, they have to work together. The, main problem is foofu la loolu amul nag defe na will find very difficult before it will be too fekk yëpp yaa xam ne keneen ñëw bëgg a jagaar yëpp dafa jël time loolu loolu mooy si point te coach Tom waaw moom daf ne mën naa at coach bi ma fi bu ma ko dogoon xam nga moom luy bi si bi la war a rectifier mu def lu leen moom daf lay war achievement yu mu def. Drona Morocco drone Algeria fii drone fii drone fii loolu record lañu Gambia daf lay xas waa waa Ghana waa mosul am lii donc five years tamit ñaata years et décade bu ñu leen awee game di on on record yow da nga sabee tey am na tey xara ëllëg waaw moom tam bu yoo xam ne performu donc ko daxa daxa daxa so Gambia ñoo ko jox di platform with the excellent of our players waaw ñu ñëw ñu execute waaw moom you had a better CV waaw in Gambia. also have a better CV mm mm-hmm. to being coached by Tom. Tom waaw loolu la foofu la nekk so vice versa. waaw loolu moo du dee bëgg a living boppam. foofu laa bëgg a ñëw du dee bëgg a jël boppam waaw mu récolte si passé mm. si passé am ne ñun faloon ko. tey football su ma dooree tey dama am naari waaw dama fàtte défi bi damay elaat ñuy ñëw élite moo tax ñu ne football never stop français lu ñu dee ba le travail continue soo winee sax nga waaw ma congratulation to myself maa foofu la em léegi beneen game comme lay boña su winee si game mu win si on a bi daf la wax ne bi tey fii la em léegi ñu ngi xalaat beneen win waaw du dee ñëw wax record bi passé so comme coach Tom loolu de tinkee nag comme lu coach technicien la xam na xam na technicien ñoom itam dañ even even the government officially ñi ngi xool gars yi dañoo play we are we are journalists waaye they are happy bon ñoom tamit war bi kon ñoom fédération bi ne di fay na ñoom ñoo ko di fay fédération bi GFF ñoo ne ko di fay waaye ñoom su amoon date boobu enough ah su leen dégg am ñu fay ko da bi da gars yi gars bi because of timing late leen bon ministre ñoo ko sañ ministre bu ñu ko sañee after bonu gars yóbbu ko seconde non gars exécuté beneen beneen coach bi Luigi bu nekk fële italien boobu isi ko mu liggéeya boobu te jëfe fa after go because national team bi is doon to dem so léegi moo tax moo tax government officiel ñëpp ñu ngi complain ñu la doo demal comme boo yéen seen government bi du ne fay coach Thank you very much. a problem. All right, uh, Jere, thank you Basiru, I'm a Jaite, I'm a bro. We have um, uh, good players. Even me as a police officer, I can select good players uh, who can <laughs> compete any team uh, in this world. All right, thank you very much, Basiru, uh, for that. All right, uh, Nudem a um, coach, another important thing, because I'm not Kiana in this guy saying that now is the right time for our professional ex-players, to start campaigning uh, to football. All right. Uh, thank you very much for that, Emmanuel. Okay. Uh, coach, uh, ñu xool uh, contrôle nañu rek uh, this as a score issue because soo gisee as a score issue bi uh, gis nañu lii si yooni yoon because képp kuy seetaan di Premier League especially Manchester United whenever they lose ñoom Roy Keane Euh, ñoom Gary Neville you know dinañ génn criticize ama players criticize di coach euh, di wane lu ñu def baaxut waaye wala façon it was very sad ñu gis Assis Koor Ñang euh, mu nekk Gambian player ku nga xam ne gisoon nañ ne génn na wax li di version am waaye wala façon lu Assis gi am rek mooy ne lan la Assis contribute on Gambian football and coach and I think ne is very wrong pour ñuy war mun a Euh, joxe lu mel noonu lan la AS Sport def euh, si wàllum lii di ama football euh, texte bi fa nekk mooy Lamin Bojang to AS Sport yes you have right to criticize but have but what have you done to contribute your quota Uh, in the development of football uh, uh, in those countries coach lii moo nekk lu nga xam ne mu ne you have gone to some respectable coaches in Europe you have learned few things from them what is stopping you from taking a coaching role at one of your um, first or second division club and help um, impart knowledge that may seen as that may serve as a, a, foundation for the young um, talents. Eh, was a coach at Casa Sport, sorry, as his coach Casa. Um, so he, how to call it, um, Alu oh. eh, before taking off Senegal, you know, am nañu nga xam ne rectify nañu woon ne ko as his coach Casa. He was just a technical director at Casa Sport. Euh, coach léegi nag ne ñun suñu euh, suñu gestu euh, suñ tontu mooy ne rek ne as a score is a patriotic citizen as a score will witness personally cover the cost of his plane ticket you know just to represent Gambia loolu tey ñu bëri ñu la ko nangoo defal because as is you know booba xamoon nañ ne xaalis nekku di génne comme ni FIFA funds was not coming it was only government you know ñoo doon responsible ak ñoom si di kinte maybe they go in uh, tayle seen kii li kër yi waaye these players we are coming to the Gambia player li di réewi Gambia jënd seen air ticket duñ am match allowance duñ am match bonuses in fact lu ñuy def mooy jëndaale daal indil ñu nga xam ne they are not playing uh, outside Gambia ñu indil and I think uh, su fekkee ne lii mooy xew um, which ex player su team bi defee wrong wala coach bi def wrong criticize ko where soo criticize ñu attaque la on social media and I think ne Aziz has did his best recently lu mu def rek mooy come back to the Gambia play at Real de Banjul football club mais <laughs> man bi ma readee article bi ci ci social media bi mhm. um, it was like um, dama ne non su ma ko xamoon personally I will call him ñu discuss offline mhm. waaye tam it's it's it's it's disheartening soo xoolee nit koo xam ne suma waay dafa métti xol dafa métti ci xol trop nit koo xam ne devote na all his professional career anytime he is called upon yeah he is available so ñun dañ dee war a dañ dee war a saama sun sun sun sun oh, puugaroo sun sun legend si dañ leen dee war a puugaroo players like ñoom ñoom Laos ñoom Lamine Oyin soo leen gisee si mbedd bi ñuy dox. dañ leen dee da nga leen dee war a ormaal. ormaal ça va. understand nga dox leen loxo waxtaan na ñoom understand nga man loolu laa dee believe in ku la musa saab sax sa nawetaan team sax soo ko gisee sax da nga ko dee war a respect because football mënoon naa dugg si biir fil bi tànkaam bi dama after mu end of bonu with benn bonu bonu di leet bonu jot benn butam bi because of national understand so yooyu noonu yëpp dañ ko war a xool so loolu tax balaa ñoo dee dem yéen a to the level of that high level of criticism towards an ex So this is the only reason why uh, Jato bi hmm. dee bëgg a wax because Jato recently buñ balotee ak Sénégal call naa ko personally waxtaan ak moom uh, ne ko dañ bëgg a am an exclusive interview play nga ak Sénégal yaa ñum Aziz ak others uh, mu ne ma mbay seen réew moomu neexut a jagar yow te man bëgguma ko ma yeb waaw ah, léegi gis nga gis nga deux heures. te Aziz jatu xam nga moom mu ngi wax ne eh, Aziz su su either come back home. Mhm. lan la defal Gambia loolu la laajte. Mhm. should either come back home mhm. and do what. coach take a coaching role. minister it's not every ex-player should be a coach or an am na ñeneen ñoo xam ne pondit la ñoo nekk. am na ñeneen ñoo xam ne duñ nekk pondit but they have their own. opinion on anything, on anything that happens. especially Manchester towards their club towards the national team. su dañ dee wax. Mm-hmm. Henry daf dee wax benn tey about Arsenal. Mm-hmm. Ah, te mu ngi coach. te mu ngi coach. am na am na am ñoo xam ne comme nearby country fii rek El Hadj Diouf. yéen dafa bëgg a employé. <laughs> ñoom <laughs> mm. noonu ñëpp nekkuñ di coach. waaye su national team bi defee loo xam ne right oh. fédération bi def loo xam ne right fu ñu leen jubalee Mike dinañ wax ne hey look because the nation is bigger than any of us. <laughs> dinañ lim wax ne this is not correct nii ak nii ak nii dañ ko war a defee nii ak nii hélas du sometimes daf dee wax ba mistake. waaye yëpp daf laa woon ne la ni buga buga bi pour mu correct. te moo moo ko moo ko ñëpp leen door a di seen. comme ça léegi léegi how is it. yaa when coach is really opened up. Mm-hmm. and they coming into the training ground discussing with the players. boosting euh, ñoom la ñoom ñu nekk si. technical ñu ngi si technical team bi xam nga nañ bàyyi daal nañ bàyyi suñu ex players yi suñu leen mënut a jox. respect bu ñu leen nekk di criticiser si social media bi. ex players itam nañ xam ne. Euh, genuine criticism mooy tax nit ñi duñ la mun a duñ la mun a la mun a attaque ci yenn attaque because tam soo ko defee partial in criticism nga xam ne da ngaa dem directly to an individual because of xëy naa ni moo doxee neexut la also non come up with your concrete or genuine criticisms nga ne nii ak nii ak nii ak nii laa foog ne suñ ko defee nii na def nii nii lu yàggee nit ñi dinañ door di la déglu most of the players they have their Facebook pages. Yeah. and if they send in something interesting nit ñi dañ ko share. absolutely bés boo seenee loo xam ne it's not interesting nit ñi dañ ko share so nañ bàyyi suñu xel si li ñoo share li ñoo li ñoo post si social media bi because tomorrow tam loolu mun na laa toppa yow mu xoot la. so loolu tax anything lu ñoo def rek nañ bàyyi daal suñ koo xam ne he is a national hero in any discipline. Mm. from our police force or the servicemen. the security personnel write down anyone who is serving the nation nañ leen jox di gratitude da respect should be there because su dara xewoon fii tey mbay yow yaa man dañoo daw dugg si ron table bi mm, mm. the officers will be stand firm to resist mm. so dañ leen war a jox that respect su football jotee nii tey yaa mbay yow yaa man dañoo taxaw di seetaan di wax lu ñu ne kële topp tompongante sa boppam bi toj mu jëlee fa skull or brain damage ak yenn dof di dee lan lañ ko munal yóbbu ko mu faj ko ñu ne tane na pare na America tane na dellu si mm, su feebaraatee boobu is the burden of the family so loolu tax dañ eh, ñi dee serve di national teams ou ñi dee serve the services of the nation dañ leen war a jox that gratitude ñu respect leen ah. jox leen that honor Kampo that euh, saga on Aziz euh, gis nañ Aziz mu ne euh, thanks we we we can all we cannot all be um, coaches but uh, there are enough ex who are coaches I can give you more than ten ex players who are coaches waaw loolu kay ku nekk dafa ajis la loolu ko violé ajis sa livre ku am a sacrifier la gaan mu ñëw di spend liyam soo ko mun dawal jërëjëf bu ko moo kii bi sax te Tidiane da da nouvel livre bi ajis loo xam musi so ajis waaw ak turu Aziz Kor ñoom ñoo organise loolu organise fi ay triage ak ndóo yu bëri ba nga am correct ndóo yi au dessus nga yóbbu leen. ak baa moo fi mu tim waa timu ba tamit mun naa mun naa ko assagi ko ñoom ndóoy Tidiane Diédé yi moo Aziz ko Aziz ko moo ko nekkaalal fële moom mu nekk fi gars yi di ko ndóoy temps boobu sax temps bu mu nekk yàlla di sax di seen laaw ak ndóoy di so ma seetaan sax moom mun naa mun naa woon lu bëri sax ñoom ñoom ñoom ñooy doon dooy ànd ak gars yi mhm. at least mu ngi contribute mu ngi try pour développer ah, grassroots football football so opinion la Gambian la am na right pour wa one man job because you have the international team démba mhm. démba ñoom ñoom Habib Fall ñu doon interview Pamoudou Pamoudou who was the captain of the national team mm. so you have to say it so na leen na leen respect suñu expérience yi di have their right for opinion comme man nu may waxee nii man journaliste la mhm. ma ne kon suma opinion bu ko soog naa soxla tamit teel ma man dama mën a tukki mhm. su gars du ma mën a dem so loolu la soo du du have respect comme man léegi dama dajee ñoom always nii ñoom jox laos mm. su ma tooyee gars yi mm. foog gars demee et puis suñu fi format naka ba suñu daat bi naka kapi dam dee moom mhm. moom su boobaa sax daf ñu ne wala lu bëri seen termination ak Gambie ni moo demee waaw comme ni ñoo play nii. daf leen neexul sax. mun nañu Gambie xamul lii ñun su ñu play woon Afrique ñoom doon nañ fi Afrique ay yooyu. te eh, bu moo dóor Afrique. waa crise moom. da nga ko war a nangu comme ku ñu fi it make you to develop. comme man tey fii su ma nit tooy ma wax su ma saagee no problème xam ah, nga su ma génnee face to face doo ma doo ma ko so I have to take it comme man maa fii mm. pour jël job bi so but we have to respect our nga fula fula fula professionnel. ok kon ñoo xam ne day représenter Gambie te am nañ right pour wax. waay bu ko dee dee Gambie Gambie is bigger than everyone comme ni ko ko jógee fii. thank you euh, rek ñu ngi war am euh, GFF results ak kii di Mami euh, mu jox ñu update ko tuuti rek si du gaaw di Lamine Diallo beeg mu bokk si Gambien yu score. si ama CAF Champions ama League bi Lamine Diallo score na Demba against I think Young Africana. Young TP Tanzania. Tanzania. Yeah, one of uh, oldest uh, yeah, yeah, ya yeah. One of score. And I think that you know Tom should consider Tami uh, Ndawi because you need play in Africa because we have um, Aliou Diata. Uh, they play in Egypt, uh, Egypt. Egypt. You know, recently playing against You know, midfield, uh, a very good game. Uh, you have um, uh, Jibril Silla. Uh, they play, uh, I think, Az Az Azamba. Azamba. Azamba. Um, you know, uh, Dembarak Lamin Skona uh, on the Champions League, African Champions League. you know, well, after, we after Africa Coalition is the most. Yeah, I, I, think will say uh, congrats to Lamin. Keep This is what we expect from you. You have the talent. Uh, and I think it's a product of Dakar United, Mayor Real Dubandi, um, which um, we are always proud of when we say Bakau United. Mm-hmm. I think they gave us most of us they gave us the platform to to or execute what is in us. Understand? waaye moom is not a dull xam nga he waaw te moom kanam rek. waaw he is a bold and brave individual boo xam ne soo ko xoolee su dee play he believe himself understand te loolu rek moo xew so lu tax ma ne la he is bold and brave brave individual. Mm-hmm. Eh, he was in Europe and he have a contract. When his contract expired, nobody renewed for him. But he decided that there is a chance for him to come and excel. In Algeria. In Algeria. And doing a good performance in the African Champions League will excel him back in Europe. Possibly with a better club. Now, coach, what was the league? These um, uh, African going to buy these Canadian clubs. I'm not play in Europe. no the leaks African leagues the leagues is more the leagues in in there are certain leagues in in Africa. Mm -hmm. they are more competitive. Yeah. than some of the Scandinavian yeah. clubs. Wow. because it, it's the name of the Europe. The problem is possibly the, difference is little by organisation. Mm-hmm. xam nga tubaab moom lu moo def rek daf dee try to perfection. ñun Africa fii xëy na possibly that's the only. thing that is lacking. waaye Arab Arab this Arab teams. Arab moom dañ dee dañ dee organize soo demee si eh, country like Al Ahli nga dem to like Morocco. Algeria Algeria. understand Tunisia South Africa those are teams yoo xam ne ma waay yoo xam ne soo fa nekkee sax dañ la dee fay. xaalis bu bëri xaalis bëri than even if you are in the second division in Europe. xam nga. So tam dañ ko war a jox that due to our African teams waaye te gëm naa ne Lamine Diallo lim def noonu with the performance that he showed out yesterday from the bench he came and mark put his mark on the scoreboard su continuer nii I am sure because he's um, when Tom started coming into Gambia he was among the key players that were called upon week in week out understand and uh, all of a sudden he lose his position. foog naa Cup of Nation bi sax. yeah he was there when started he started waaw. so so all these things can be can be can be can be mun nañ koo saafara ba nga xam ne performance am bi moo wone ci Cup of Nation bi suñ ko ooyee su ñëwee. Mhm. in Africa. Mhm. because moom du soxla that much deep acclimatization because miin na ko ba pare. he is in the Champions League. he is going to play in certain countries nga xam ne dañ laa play loo a one Ghana okay gis nga he is coming to Ghana Ghana is also a very hot side hmm. understand nga soo demee dë bu mel ni Tanzania Tanzania tam noonu la so waaw gis ne mun nañ koo seetaan waaw so soo ko xoolee soo ko xoolee rek dama ne dafa dafa xaloon a teegi tànkaam si ci ci accélérateur bi rek waaye hmm. waaye comme mu ngi ko tegaat ci ci ñu ngi koo ñaanal rek yàlla gën koo suturaal bi nga xam ne dina free from injuries mu continuer di def lim mun te bi nga xam ne dina mun a every match mu bang in two or one goal waaw Kampo quickly um, ñu doon dugal suñu gars yi uh, Beck a ah, Beck yaay démb gis naa li bi yaa hmm, pause bi si yow soo hmm. maanaam fulu benn craftan bi li gaa fulu si pour dégg but it's not a scorner. The scorner is one of the best team in, in, in East Africa. Not Africa, but one of the household league. Mm. So we're young African. If you're young yeah. African, TV you're African, I'm not Gambia is a So if it's coachable, jaar na jaar na jaar na coach tam sa jaar na yow Afrique ah, waaw yow yow yow coach bu nekk la coach tam East Africa bi ay ñëpp a ko am Tanzania Mozambique ay nekk na Swaziland dem ay six months waaye six ay mbesa nekk na seen teg na ka daal ok tom tom sa Afrique he knows Africa. Africa very well. Mm. East Africa dafa ko am. waaw so so nekkul gan foofu so bon it's good. to play CAF CAF Champions League because CAF Champions League foofu foofu football in Africa. waaw su ko foo soo winee tamit foo nga mën a qualifier nga dem World Club Cup. day mën a gis Africa have something but majority bi de Al Ahly moom dañu ak TP Mazembe woon ak ku nekkoon fii Congo ak Eimba. xam nga waaw foofu soo fa diri fa ne comme ku ñu ko soo diri CAF Champions League. it's easy for you to go to Europe. ok nga daan naa di recruit bu ko def place dañoo bàyyi Europe sax ñu war foofu di play ko ko captain bi just just Europe seen organisme bi. mu uddi ak suñu bopp ko moo ko ah, dafa dem foofu pour ut doole léegi mu ngi play bi ngi aw. ok so nekk na moom di complet su nekkee si ci team di complet doole mu ngi noppi rek def low profile am mu ngi concentré football kaay bu ko dëgg la lu bëri fii beeg dafa jeexal beeg baal benn yoon waaw soo ko amul nag façon amul ko. Mm. but he is a very he is one of the most nicest person of the picture. ok so wala bi mu jëm jëm laa mer wala ci nga ñëw mu a type of type waaw man ko réewlu understand nañu. yëpp. Assane Assane góoram koo yëpp. waaw waaw waaw dëgg am is not am man dama ko fi de wax naa ko fi di last time modern day football. Mm. you need speed, speed. in attack. Ah, supplancy. Left channel. Speed in attack, not even supplancy. Mm. But if you say speed in attack, mm. nga jël. Understand nga ba. Mm. From the midfield, if you have fast footed mm. soo xoolee soo xoolee soo xoolee suñ suñ suñ campagne to the qualifiers going to Cameroon. da ngaa am eh, Modou Baro ci benn laaf bi ak non non si starting bi booy bi ñëw win Angola ñi nekkoon ci biti fanaa Modou Baro la woon with Jamano uh, I think mm-hmm. waaw so da gis ne foofu noonu am nañ fa very good speed flair also mu ngi am bokka yaa ngi am speed with flair mm-hmm. so da gis ne ñooñu noonu uh, creativity bi su gaawee rek Assane dafa nekk in line soo xoolee the amount of offsides that sometimes happens against Assane is due to due to the lateness of lateness of of of of of. of okay. delivery. so Assane dafa nekk koo xam ne tam soo soo play moom supply bi dafa war a gaaw waaw dafa war a gaaw ba pare they have to play nearer to Assane but as of now we are playing distance away from Assane. meaning that we have to send the ball to him pour mu téye léegi soo seenee ball bi mu dem si Assane Assane is not that combative. su téyee gars mun nañ koo mosulof ñu jël ball bi ñu ñëwaat. so he won't perform. te su yàggee loolu noonu sax trauma la ci moom. being the top scorer ba pare. how many games did he play he is not scoring anymore. he is not even not to talk of scoring. he is not doing good performance in the national team anymore. understand nga so loolu noonu yëpp these are all factors yoo xam ne coach bi war naa xam ne. he made Assane he made mm. Assane to be the national hero. Mm. the top scorer of the national team. Now he's not scoring. Now Hassan is not scoring. What is, the, problem? What should I do to make him get or, uh, eh, get scoring again? Those are yëpp moom Tom xam na ko. ok thank you very much coach uh, ñu jël naas li rek den dugal suñu gars yi uh, den ñu uh, tàggoo this one say Lamine Kanté I remember Tom press Tom. uh, my, my press. He said Campo did not like me. Yeah, léegi Liga Campo like na ko as he scored, just look at the way Asan scores his goal. Uh, he need crosses uh, to come in. Yeah, euh, lulu na wunan ko. Euh, right. Euh, quickly, rek ñu dem indi suñ mami ak Essa mu jox ñu scores then ñu tàggoo coach. Euh, new club euh, by the name Serekunda FC ñu nga xam ne recently ñoo jënda lii di Gamtel kampo euh, xam naa di oona um, Youssoufa ak his Gambian counterpart that's Ama George um, ñu pare nag pour you know modernize football um, comme nu ko BS di Galaxy defee Real di Banjul ma uh, how to call TMT you know uh, the change in dimension of football because soo xoolee Serekunda the way they approach football uh, nu ngay defa xale because they have very big clubhouse boo xam ne you know the first day ma dem fa I uh, wuñ ko social media waaye uh, in the heart of Kololi foofu la seen clubhouse bi nekka very beautiful house uh, taax la si kaw di fa taf xale yi di campé am na ñu nga xam ne foofu la ñoo fanaan comme li xew Sénégal you know they want players pour ñëw di fanaan si seen clubhouse bi pour ñu mën a monitor ndaw yi um, on the league is Serekunda football club But their main object is Serekunda Football Academy because Yusuf Wala wane na ma ne in the next two years moom dafa bëgg a conquer Gambian football dafa bëgg gis ne Gambia bokk si réew yi play World Cup te moom dina produce those players dina market players yi in France in England. waaw eh, eh, loolu is a is a joy to to hear. yeah ne. and you know and paying a good salary players. there is somebody. And they all pay through bank accounts. Wow. They don't give cash. xam nga government sax. après léeg lu fa nekk mooy su fekkee on a age ne sa yaay mooy seen contract bi the money have to go to your parents. xam nga loolu yëpp is all um, ethics of professionalism. mënuloo mënuloo mënuloo sign an under age ba pare nga fay ko salary in his hand even in Europe those in the academics. are paid, but they are paid through their parental accounts. so loolu noonu li kii di def nii eh, is is something loo xam ne Yusufa is something loo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a applaud. mooy du waaw dañ ko war a applaud ñun ñëpp loolu dañ ko war a applaud because government si am sa daf la dee wane la ne is trying to resist from paying over the counter. xam nga everybody should try all staffs. and they all pay tax because ñu fay xaalis. waaw merci jaaree sàmbi su noonu la war a demee loolu dafa war a correct loolu moom ñun ñëpp ñu ngi ko lifin te xam naa ne they have a slow start. as of now they waaw they have a slow start but as as you know if everything is new. this is a new team that they are building. because most of the players that were in Gamtel are left behind. so they are trying to restructure the team better. su ko defee mu move on. The coach there, I know him very well. Jim. He was my player mm. at Sticklers. And, um, he have shown his talent and caliber when he first took over, when Tafamane left to Liberia. He, did wonders with Gamtel. Mm. And uh, as time goes on, I am pretty sure he will prove himself to be one of the prospects also in Gambian coaching. The uh, Yusuf Ali moo def noonu nañ ko def nañ ko gën a doole because soo xoolee ñii eh, ni gam eh, Hawks football club have mm-hmm. seen their training ground so loolu noonu tam is a plus teams are now trying to am nga make sure that we move to nearer to professionalism semi professionalism because su ñoom Steve ñëwee yi yi fi doon wax Steve ñëw na TMT ñëw na TMT they are building a big football football bi structure mu ñoom tam gis naa some of the pictures yoo xam ne nit moo ko nataal mu won ma ko I should not have even said it here because ñu ne ñoom ñu ngeen nubbu mais <laughs> suñ paree waaw su xam nga rek tam hmm. waaye pour gis ne everything is going on the right direction su yàggee xam naa ne dinañ am one of our most successful club Walidan also come up with something similar to what already real moom ñu ñoom moo Real Real daily Real Real bi ñoom ñoo start move into professionalism mm, mm, mm. and then ñeneen ñi ñëw ñeneen ñi ñëw ñeneen ñi ñëw mu ngi gën a yaatu te loolu la soo xoolee club si léegi ah soo dut fay soo gisee Real léegi is having challenges of getting good players Real bu njëkk bi player bu baax bu rice ah, su ko guys soxlee dañ ko di léegi dañ day am ah, challenge because teams are also doing as they are doing understand nga exportation of players gars yaa ngi koo def paying good salaries gars yaa ngi koo def conducive environment towards the player yeneen club si ñu ngi ko def so li lañ bugga su affaire bi bëree compétition bi nekk fa players yi excel ñu jaay players yi outside ñu ñu continuer seen professionnalisme loolu rek lañ soxla mbokk quickly euh, ñu dem euh, sot commencé break rek euh, contrôle lu may ñu benn ten minutes ñu engage mami ak Essa hmm. Youssoufa Youssoufa Youssoufa ah, Youssoufa moom comprendre ne moom ni la dóoree woon aussi auslo bi sax tam amu doon fenn mhm. dem tam ba am académie ba léegi mu ah. seconde division Oslo Oslo ko moom mooy ta division la gars yi nekkoon national gars yi ñëw ñëw ñëw César na ñoo topp ñoo topp seconde division. seconde division waaw moom taal moo gis focus am ne not from Babot to maintain his team. waaw waaw su bu baax waaw su ma kat ma kat play mu koy have a very big foundation boo xam ne mu ngi indi it. Hmm. ñoom Krépin Diatta ni ñoom John Lopin nii yëpp play am ne moo leen développe te mu ngi côté tamit Sénégalais ah. football tamit est notre chose loolu la a si bëgg xam na ne Gambien bi. Sénégalais bi ñoom Sénégalais ñoom ñoom Alassane Kasama ñu ko ñoom ñoom Torres. ñoom ñoom ñàkk a jamono te de dañ leen a sign ko ñoo leen daa télé bi bon ñoom physical living bi la Gambia bi ne mënu coono bi different bi moo tax mu am this idea de propose bi mu ñëw Gambia développe fii living so su nga ko jàppeele ak bi di bi di Gambia bi dina dina dina leen def because you have the money how uh, to invest invest léeg-léeg moo maa ko advi ko di moo dégg la because of réel bañ a leen support mm. but those those

invest soo investé rek. Hmm. di nga di nga dem soo ñu ñu gis ko good luck la bu ko mu am sunu start. six out of ah, six point what mu am three soo nekk pour seconde division bi. Hmm. moo mel noonu trop alright thank ñu dugalee very short commercial break mu jox ñu eh, ma resol si GSS bi ak ceebu rek eh, su boobaa ñu rapport eh, ak saa di sport Bantamba Euh, ñu dellu si waat rek fii si Star TV Sport Bantaba quickly rek benna 5 minutes euh, ñu wrap up euh, update from Smiling Coast Fans Club Mamisira then sa mu jox ñu very quick update on the GFF ama results ak table ak fixture tey right Essa ñu bàyyi rek nga jox ñu ama results yu nga xam ne moo xew démba ak table bi ak match bi expect war a xam tey ok jërëjëf Mbaye Kamara di jaajëfal ñëpp képp ko Star TV so DMRC first division league bi Barrow official panna uh, week three mhm. uh, dal la ñoo gis uh, foofu moo nekk sa biir Banjul Banjul United de mujjee draw team na Fortune 0-0 dal la ñoo gis foofu tamit si biir biir Kama Bombada dañu am seen first win gannaaw bu nga xam te ni ñoom fi ma ne ci nga si Greater Tomorrow ñaari ah, bal si benn ah, déema tam gis nañ si Bansoor yi gannaaw bu nga xam te ni Real de Banjul ñu am nañ lu moo nekk League 3 si lu moo nekk Week 3 si lu moo ni déema ah, ñun du si Steve Biko so gannaaw si yooleen biir dañoo dem si lu ma nekk first division league table gannaaw ñetteelu game bi da la ñoo gis ti mu amee si Real de Banjul ñoom ñoo nekk top uh, with nine points. Team Rhino, two games played with four points. Uh, Banjo United, third in the table, three games played with four points. Brikama United, fourth of the table, two games played with four points. TMT, ñoom ñu ngi si lu moo nekk uh, five position with four points. Uh, danañu gis Fortune ñoom ñu ngi si six position with four points. Uh, Gambia Armed Forces seven position with three points. Team Rhino ñoom ñu ngi eight position with three points. Samga nine position with three points. Greater Tomorrow ten position Falcons ñoom ñu ngi 11 position with 3 uh, points uh, Bombara 12 position with 3 points waa Banjul 13 uh, position with 3 points BST Galaxy 14 position with 2 points Walidan 15 at the relegation zone with only 1 point 2 games played Steve Biko seeni 3 games this year bi yëpp dañ ko daal di ñaaka so gannaaw boobu mbir dañoo dem si first division league tey euh, lu moo nekk week euh, three dina daal di jeex euh, gannaaw bu nga xamante ni foo moo nekk sa biir Serekunda East dañoo daal di gis Gambia Armed Forces dañuy war a jongante ci nambe si TMT remi nekk newly promoted team team Rhino ñoom dañoo dalal lu moo nekk Walidan foo moo nekk sa biir late Ousmane Sanf Ball Field dañoo daal di gis Marimo Footpath ñoom dañoo dalal waa Banjul Bakau Mini Stadium Thank you very much, Esa, uh, for that update. Uh, while we just had a BST, you know, uh, during second division, you know, um, uh, at the bottom of the table. Uh, we hope, you know, they fight back, you know, um, to them because second to last table, like I stand, it's not easy to play the um, Real, with, with nine points. <laughs> Uh, Real Devani, jamono ji xam naa ñu ngi si right track bi because three games nga am lu mu uh, nekk nine points. waaw right now tamit bokk favourites pour ñu win lu mu nekk first division foog na uh, this year. a back to back. waaw man damooy nekk waaye ba léegi table bu ngi tight because tey team Rhinos yu win yi dafa mel dañoo nekk seven points. dafa mel two points mooy dox seen dañoo mën Real. thank you very much uh, mami quickly rek jox ñu updates den ñu uh, wrap up lan moo seen latest um, development when it come to um, uh, pour tukki dem foofu si biir lii di Afrique Coast pour support lii di um, Scorpions si ok Mbaye thank you so much di wax askan bi ne man nga naan nuyu rek di leen jaajëfal. Mhm. Ah, Mbaye ah, waxoon naa la ne dinañ doon commencé door to door donation bi last week Tuesday. Mhm. and unfortunately in ah, defoon nañ ko last week Tuesday towards the Friday. ok like start ngeen door to door. ko and luñ doon luñ woon luñ foogoon ne comme du doon dem. Mhm. comme lu raw loolu lañ doon expect. because ñu ngi starté woon Abuko South. waajal be Faajukunda South Faajukunda euh, Bajonkoto ñëw towards Bantaba ñu eegaat laal Piccadilly mhm. ak Beneema mhm. so dañ doon dugg kër tu kër ñu doon ñaan ten dalasi it was very funny though ten <laughs> so it was very funny though because if we reach to a compa. Mhm. comme ñu jox la paper bi. Mhm. soo jàngutee sax ñu explainal la. Mhm. ñu ne after dox bu ngeen doon dox yëpp ten dalasi rek ngeen doon ñaan. ñu ne leen waaw because gis nañ ne waaw gis nañ ne comme dëkk bi métti na. ko waaye dañ believe ne Gambie yëpp suñu mayee ten dalasi dinañ dem Ivory Coast. and liñ jot gaada gather from that four days am nañ forty eight thousand six hundred dalasi. waaw loolu lañ am soo beneen bu ci toppa dafa am dox bi rek waaw waaye jeexaagul waaye am na ñu du ñu ñu doon bañ a may ten dalasi dañu doon may like two thousand three thousand dalasi because ñeneen ñi comme ñeneen ñi xam nañu personnel waaw ñeneen ñi xam nañu personnel ñeneen ñi ñu doon wane turu sa show bi. Mm. comme foofu lañ doon déggee ne comme ñun dañ bëgg dem Ivory Coast ak ñoom support nañ loolu bëgg nañ ne pour ñu dooleel especially lu ñu gars yi di dee gën a advice xam moo nekk génne Gambia bi. Mm-hmm. ak senegal ñu ne boobu moo gën a important loo gis soo bëgguñ fan si ñu dominate ñu from there and wax nañ leen ne incha allah if we be there. Mm. yëpp dina baax soo beneen bu si topp dafa amoon lu kiligoon suñ maan bi ne. Mm. comme style soo gomee janvier jot na. Mm-hmm. te probably January lañ war a jógee fii pour ñu dem ñun. so the thing is moo nekk uh, still accommodation bi ak transportation bi rek moo ñu des. so waaye lu ñoo cover si xaalis. mënut mm-hmm. a tagget amende bi nga xam ne moom lañ soxla. doo bind nañ compagnie si nag waaye respond na ko. Mhm. so ñun tamit mënuñoo toog yaakaar si ñoom ba si last minute bi ñu war a féew. Mhm. so luñ nekk di def di xar suñ tànki tubéy pour def ko waaye luñ bëggoon moo nekk. Mhm. démb bu ñu amee final meeting bi moo nekk dañu wax ne ne comme su fekkee mën nañoo toog waxtaan ak askan bi won leen ne comme am na ñoo xam ne mënuñ ñoo jot pour mais ñu fii ba koy na. ba Banjul. soo ko jëlee koy na ba ñu bari mënuñoo may. waaw ah, xaalis ko mënuñoo ñun mënuñoo dem foofu. Hmm. so léegi dañ dañ defaroon ah, ah, flyer bu ndaw hand hmm. flyer bu ndaw. Hmm. boo xam ne dañ fa def suñu account number bi. ak suñu wave number bi. askan bi yëpp laa nekk di wax comme su fekkee mën nañ ñoo dimbali. nañu ko xam ne eene nañu ko rek mu may ñu 200. 200 euh, lan mooy account si euh, Ecobank bi ak euh, wave bi. ok hopefully di ngeen ñu jox seen flyers si in our next programme si dañ ko mën a. Euh, tasaare pour Gambien si xam ne rek ne fii lañu war a def xaalis bi ah. ok yaa account number bi bu Ecobank bi boobu mu ngi nekk 67. 40 12 060. ok boobu moo nekk account bi mu ngi nekk 20. 10 772. ok yaa so ñu ngi ñaan askan bi daal ñu jàppale ñu fi ba fi ba base daal. képp ku ñu mën a may 200 rek foog naa ne loolu sonalul la tuuti. dinañ jël flyers si dinañ ko saaree si social ama media bi euh, final rek ñu bàyyi la nga tàggoo ma yaa nga ñoo war a jàppaleen ndimbal rek lañ soxla because def nañ quota hmm. so ñaar yi rek moo ñu desee te foog naa ne décembre january jot na ba pare so mun di fan ngeen war a dem si dox bi so fu mu nekk nii mun di dañ ko def street walk from Serekunda is Wacha Westfield ba Kerba Avenue because dañ nekk di séddale flyer yi pour jox ko ñi seen xaalis yi su suñu account. yeah with the with the wave account. yeah ko bank. Uh, la sa final kàddu ñu tasaaroo uh, ba samedi incha allah. di sant ñu nga xam te ñu ngi déglu lu mu nekk uh, Star TV di jaaj fa ñëpp. keeping sporting ba next Saturday incha allah. alright jërëjëf thank you very much thank you uh, gërëm suma ko partenaires yi rek mooy ama coach Moustapha suñu mag bu baax uh, bu nga xam ne wax dëgg yàlla mu ñoo jàppale si wàllum lii di ama uh, analyse lii di magis yi di tamit rek di wax xam si wàllum lii di football gërëm kii di campo bu baax a baax di gërëm tamit rek suñ train kii di Jaynaba di suma doom incha allah lu gën a yàgg rek moom it di ngeen ko gis incha allah si caméra bi su boobaa rek mu jox leen lépp lu nga xam ne rek. mu ngee dox si wàllum lii di grassroot football si football yi jigéen incha allah dinañu ko far di indil fii si biir programme bi gërëm kii di Ibrahima Diarra Kampa euh, gërëm kii Jaynaba jàppal ñu di caméra bi ak tamit ñëpp ñoom Jaynaba euh, ñu nga xam ne rek ñoo fi nekk si biir lii di ama programme bi ak Yaamu Daw euh, lépp lu rafet rek moom moo ko rafetal si biir studio bi ak kii di Rahana thank you very much keep on supporting Best Salam incha allah